safar safar safar salaatul lasi fi kulli saarin wa 18 safar sunu mbégte yéen muudu muudu yi nekk ci axsanti jaaxle jeex na soxla tuxu ak jëndum bi avion ngir ñëw Sénégal fekk màggalu Touba gi ci njëgu xéewale jërëtul ngay xalaat bay amuk jaaxle ndax Touba Argentine TV ñëw na ànd ak benn agence boo xam ni bu mag la ci diwaan bi ngir yomb mën ko am ci njëgu xéwale bu ko defee ngir mën a dem màggali Touba wala ngeen gàmmu ji Touba Argentine TV ni ñun dañoo lëkkaloo ak agence bu mag bu nekk ci diwaan bi ngir yombalal Sénégalais yi fi nekk ñu am bay avion yu garanti ak bépp xeetu bay boo bëgg bu la neexatam mën nga am bay aller ak retour Magog 18 safar yow mi bëgg a ñëw ngir màggal ci tubaa ci nekk Argentine mën ngaa woote ci numéro yi ngir nga am ci bii 22 33 05 01 27 22 33 05 01 27 wala ba tey nga woote ci 22 36 96 76 42 22 36 96 76 42 ba tey mën ngeen a jokkoo ak Touba Argentine TV ci email Touba Argentine TV arobas gmail point com ma ngoog mu di xéewal goo xam ne Touba Argentine TV moo ko indi li sénégalais yi nekk ci ak Argentine ngir ñi bëgg ñëw màggal ci Touba wala ñu gàmm si mën ne am ay billet avion yu yomb Touba Argentine TV lëkkaloo ci ak agence bu mag bu nekk ci Argentine Touba Argentine TV moo leen di ñaanal. màggalug jàmm